di la xamal ne Mbàkke soo toogoon woote ñu ñëw ziyaar si soo yebaloon tam ci taalibe yi ka gën a tànk ñu jàppe ko sa jëmm waaye boo bàyyee say soxla bàyyi sa lépp ci naaj wu tàng wi di wër dal yi ak ni mbirum Sarsara yaato kon danga bëgg a won mbooloo mi ne Euh, gan ñi sañ say gan lañu ginnaaw bu ñu nekkee say taalibe kon nag ñu ngi lañuy sant Mbàkke tey jéggulu jéego yi di la nuyoo léeg sa bokk yu baax yi nga xam ne ñoo ñu wettali ci yoon wi bañ ñeme ndax taalibe kese mënut dem bàyyi sëriñam ab sëriñ tam mënut dem bàyyi ay taalibeem kon faw dañuy ànd rek ci turu soxna maam Isa Mbàkke mi daan jiitu délégation bi te nekk ci ngant dañoo boole ak ay rakkam ay soppeem ay taalibeem waaye ñun bokkal tam pas-pas ñuy ay mbokkam ci deret muy sëriñ Modou Kara Mbacke mi rakke boppam ay jànkati xasida ñu ngi fi ay waxtaankat ci sëriñ Touba ñu ngi fi ñun ñëpp ñu ànd na ci délégation bi jaar ci kër ga la ñëw ci dal bi fii ci sëñ baara moom itam ba nu ñëwee ba léegi li ko war ci gan ñi yëpp Mbàkke ñu ngi lay seedal ni mi ngi ci lekk manquéwul naan manquéwul ay dalukaay manquéwul mbooloo mu ne ña ca bokk fuñ dëkk juboo ci nekk ci benn barab boole na leen fa lu leen fa war a fekk fekk leen fa ba ci gone yi ñuy yónni sax suñ ko soxlaa saa baara waajal na ko dem ba léegi duggul ci biir këram gee ci benn néeg waaye ci buntu kër gi rek la toog te loolu tam da koo ànd ak i bokkam ndax ñii fi nekk ñëpp ay bokkam lañ yor ay kër waaye ku ne da nga ne sama kër jaayante naa ko Sëñ Tuubaa jox ko gan ñi te kenn ku ne sax kër kër ga nga ne gars yi ñu ngi koy wax eh, ña nekk ci kër ga ñoom dañoo far féetewoo berndey gan ñu ma ña ba Sëñ Saa li muy togg su ñëwutoon ci yeneen kër yi itam la fa nekk ñu mën koo def nga xam ne kon dara manqué kenn jooyu fi dara loolu Mbàkke ñu lu koy seedeel bu baax a baax a baax ndax lu ci def yow lañuy ñuy kon nag loolu daal la bëggoon a xamal mbokki taalibe yi nekk ndool tam ñuy ay murid saadix yu baax bi nu xamee ne ay yëngu-yëngu dafa am ci Sénégal ak fii ci réew mi te Sëñ Tuubaa di nitu jàmm ndax lépp ci jàmm la ko def moom bind itam ay xasida yoo xam ne sàkku jàmm taxul mu bind ko muy xasida wa kaana aqan ak rabbi bi maa yasrahu suñ dal bee ñu ne bokki taalibe yi dañ cee sasoo lu baree baree bari ci subaak léegi di ko durus bi ndaw li ñëwee ne sëñ si di egsi na la lañ fekk ñuy ñaan ñu noppi lim bu bari joxe tam yeneen lim yu bari yoo xam ne def nañ ko fa ngir ñaan ci barkeb sëriñ tubaa ak barkeb bés bi ak seen barke yéen ñii fi nekkal sëñ Touba jàmm am na ko sëñ Touba ñaane woon ical salaamatan te duumu yaa salaam liya walil ayaali fi daari salaam ñaan googa walaa bal na fu ne moo tax ñaan nañ ko sabara tam di sant sëñ ma Masamba tey jii bi nga egsee nii daa fekk ñu bëgg a génn ci bâche bi soo nu ñaanalee rek dañuy wéel loola ba fu ko yàlla yemalee suba ñu fas yéene fekk la sarsar incha allahu taala bokki taalibi itam ku ne li nga man bi ngay ñëw dangaa jàpp ne xew-xew bi yow képp yaa ko war a def ñi nga ñu booleeloon tam tàmbalee ci sëriñ ma Diop sëñ Cheikh Diop sëñ Abdou Assis Diop ah, ak sëñ Modou Diop liñ ñu waroon a def lépp def nañ ko gàttandu nañ ñu lijjanti nañ ñu amul fenn fu nu yàgg soxna yi ak ñu ñu àndal ñëpp maase nañu wax ne yoonu tey mooy yoon wi gën a gaaw ci yoon yi kon nag loolu ñu ngi koy sant Sëñ Tuubaa baax di la waxal ne daal fii daal kenn tawatul dara ñëpp a ngi sant bu fekkee da nga nemmeeku gan yi amul luñ tawat lépp jàppandi na am na nag ñu fi newul génn waaye bañ sañu nga fekk fi mbooloo mépp waaye boo fekkoon ñaari nitam ñaari nit ñooñu danañ ma a représenté mbooloo mépp kon nag loolu rek moo nekkoon kàddu yu Mbàkke la nga bëggoon tam te waxoon ko muy ne ñëpp nekk benn ñun dey ci loolu rek lañ nekk te duñ ci jóge benn yoon yaakaar naa mboolem délégation yi nga xam ne ñoom lañ dajeel ci frontière ba ñoo bokk añandoo ñoo bokk naanandoo ñoo bokk nekk ci convoi man am na sa samay oto man ñu ma ci wàccee samay oto dafa xaw a ne si am na ñu ma ci wàccee sax dugal leen ci yeneen convoi te ñu jiiti convoi yooyu joxuma leen dara ndax dañoo xam ne mbooloo mii nu àndal ak mbooloo mañ yor menn mbooloo mi la te mooy mbooloom Serigne Touba kon nag li nga ñaanoon yàlla may nañu ko ci barki Serigne Fallou mi nga xamante ne bii moom lañ tuddee bis bi te muy borom jàmm kon nag ñu ngi lay sant Mbàkke di la gërëm di la ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ci barkeb Serigne Touba loolu moo nekkoon kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullah tey jii nag ñu agsi ci dalub soxna Isa Mbàkke di kër Sabar Fall sëriñ bi ànd ak fédération bi mu Diop ak sëñ Cheikh ak sëñ Mamoul Gueye ñoom ñëpp rek ñu ànd di tatagal gan ñi ngir xam ni fañ jóge sori lool waaye nag lépp sëriñ bi la dara génnu ci sëriñ bi looloo taxoon mu wër day mbooloo mi ñëpp rek pour mu agsi ci ñoom kon mi ngi leen di tatakal di leen wax ne masawu leen coola waaye nag coonob Serigne Touba moom dafa neex ndax lu ñu mën a daj lu mu mën a daj lu mu rëy rëy rëy rëy rëy lu mu yaatu yaatu la sëriñ Touba dajoon duñ ko daj ku ci ne fi mu toll nii coono bi nga bi nga amee yëgoo ko ndax sëriñ bi rek ndax sëriñ Touba li ko yàlla defal rëy na lool waaye taxul mu bàyyi coono bi ba kor mu fi jóge am na am nay maqaama am nay ngërëm ci diggante yàlla ak yonent yi te taxul mu bàyyi lam ne ko woon ñu nit tamit noonu lañ koy roye fu ñuy sarsaara di sarsaara di sarsaara bi laa ajal musamman yàlla na ko yàlla def ci barke sëriñ bi sëriñ bi nee na mi ngi leen di masawu coono bu baax a baax comme soxna si moom lam nekk lam nekk moog lii mu nekk rek benn la wutewu ko fa mu nekk sarsaara la la fa nekk ñun ñii fa nekk tamit sarsaara la ndax la fii tamit siyaara la lépp aw yiwu la moom moom ku ko xam wax dëgg yàlla xam ko ci liggéeyu Serigne Touba waaye nag mënut a ñàkk a liggéeyal Serigne Touba ñun kër ma kër sëñ Massamba Mbacke loolu lañ xam moom lañu ñu ñëpp xamee te sëñ Serigne Touba juróomi at yim yim am sarsaara moom sëñ Massamba Mbacke ñoo fa bokk nekk am na ñu doon ñëw. di dellu waaye sëñ Massamba moom dafaa nekk ba sëñ bi di jóge ànd ak ànd ak moom ñëw kon nag bu ñëwee di liggéey bu liggéey di liggéey sëñ Massamba loolu war na coono ya ya fa ya fa am yëpp sëñ Massamba ca la bokk yu njëkk ya ak yu mujj ya kon nag loolu rek moo moo waral soxna si di yéeg di daanu di yéeg di daanu yàlla na ko ci yàlla saxal sëñ bi nag kontaan lool ni ngeen doxale ndax xam na fi soxna si toll ci liggéey bi ba taxit na tey jii la miise bi ci lañ koy war a tëj waaye teewul ne nañ àgg ci soxna si ndax sëñ Tuubaa kat dafa wax ni ay gankat boo leen amee loo leen a defal na nga leen na nga wan xarkaram gu leer loolu rek loolu rek moo waral ñëw gi saafonteeg yéen mënta am lu ko gën mun leen defal lu ko gën loolu rek moo tax mu doxale ko nii xam nag digganteem ak soxna si seeni mbokkoo yàgg na te soxna Mbaye Diop la ak sëñ sëñ Mourou Fadi Xari soxna Fadi Xari Diop ku leen gën a jege yombul ci askanu maaram yaay sëñ Modou Fadal Xari ak yaayu Cheikh Mahamadou Mourtada ñoo bokk de Cheikh Mahamadou Fadal moom Cheikh Mahamadou Mourtada moo ma ko leeral jege nañ lool kon nag buñ àndee fii ci seen tool yi maam yi du ko doxal lu ñu war a doxal la rek sëriñ bi sant na gërëm na waa waa fédération fédération bi ñoom ñëpp ànd nañ ci pour ñëw teew ci ci sëñ bi dox bi muy dox pour ñëw tatagal gan ñi kon ñun ñëpp nga ma jóg ak ñi ci war a ànd ñëpp ñu ngi ci sëñ Sabaar Fall nag moom moom nii laa ko mas a xamee ëpp na ñaar fukki at boo tuddee sëñ Tuubaa rek ay ronkoñ a koy àggale lu yàgg nag dëgg la ñaar fukki at lu ci waay am man jàpp naa dëgg la ndax man ñii kat biñ may yebal fii ci gànnaar moom lañ ma boolaloon de te mi ngi bëgg a yàgg boo nee Cheikh Massamba rek ay jo ay jooy la koy la koy àggale loolu moom ñu ñëpp ñu gone yi ñëpp xam nañ ko ci moom waaye nag tool bi noonu la rek continuer di dox rek continuer di dox rek sëñ bi xam na loolu bu baax jiite nga ko sëñ Tuubaa ay at ba suñ borom takkal la ay madaay yooyu yëpp sëñ bi xam na ko yëg na ko waaye continuer di dox rek incha allah rabbi sëriñ Tuubaa moom la sëriñ Saliou waxoon rek képp kuy liggéey sëñ sëñ sëñ bu ko yërëm ndax kii fay daa daa mën a fay te bu fayee rek la doon def danga koy xeeb kon yàlla na leen sëñ Touba fay yàlla na tàmbali ci sëñ bi te yem ci sëriñ bi rek yàlla bu bëgg bëgg lu dul sëriñ bi yàlla tàmbalee ci sëñ bi yem ci sëñ bi buñ ko defee faaw ñu raw waaye buñ defee loo xam ni bokkul ci sëriñ bi ku ñu gis daañu raw waaye bu buñ tàmbalee ci sëñ bi yéen bi sëñ bi rek sëñ bi de ànd ak ñun di dox te boobaa ku nekku ci ñun ñoo ñoo lay raw yàlla ñu ci yàlla xiirtal nag sëñ bi sant na leen bu baax a baax nee na tamit coono yi comme ni ma ko waxee rek metti na lool waaye nag lim nekk ci sëriñ bi moo tax na mu mett na mu waroon a mettee ci moom lu ko mettee wax coono sëriñ Tuubaa moom ak fay ak fay la rek la kon sant na ñëpp gërëm na ñëpp nee tamit misa bi ci tàkkusaan ji lañ koy tëj tamit moxtamalaana bi moxtamalaana bi ak jaaira bi moxtamalaana ak jaaira bi jara jaraayira bi nee na ñu ñu ca mën a dem nañ ca dem waaye ñuy sàkku nag mbooloo ma ñu fay teew ñun ko gën a man ne wàññi rek mooy gën ñu xool ki nga xam si Cheikh Abdoulaye Dieye mi nga xam ne ni lépp mooy lépp yi soxna si te yàgg lool ca biir Touba ak yëpp ma ko gis ni muy dàppale soxna si nga waxtaan ceeg ñi ngi ci war a waxtaan ndax ñoom kat ñëw nañ fa ay yoon yoon di wax ña fay ñëw mënuñ ñoo ñàkk a teral waaye métti na ci ñoom lool loolu ñu xamee ko réunion ko suñ biir bu ko defee loolu la loolu la sëriñ bi joxe ndigal ndax waxtu ne dañ koy wax waaye teewul ñëpp dañ fay réunion te loolu moo moo tamalaana ak maslaa la ci sarsaara gi ak maslaa la bokkul ci sarsaara gi de kooku moo bëgg sëriñ tuuba ñu fay jaar di ko defal ngan waaye bokkul ci sarsaara gi ndax ndax daal dend ak sëriñ bi rek waaye yaakaar naa sëriñ bi àggu fa waaw waaw bu njëkk ko sëriñ bi wax bu njëkk moo daan def màggal gi lépp daan daan sonn bu baax a baax a baax waaye nag mm, waaw ba gi di door sëriñ bi nee na moo daan indi baas bi indi ndox mi indi taraanga yi yëpp rek xewal yi yëpp rek waaye nag jamono tamit ku ne xam na ni tamit euh, day soppeeku waaw loolu mu daan def ak tamit baayam dëkk gëm dëkkoon Serigne Touba ci Sarsara ma maxtamalaana ak Sarsara yaakaar naa fukki kilomètre juróom la loola te kon dëkk na ak sëñ bi juróomi at loolu rek a taxoon maslaa googu ak la bëgg ak xër gi mu xër ba dem laaj suuf soosu laajal ko Serigne Touba kooku wax dëgg xër na te ay naalam rëy na wax ne liñ bëgg mooy ñu defar ko ba ba mu nekk wàccukaayu aéroport boo xam ni ku jël ku jë ku jëlee ci Sénégal ak foo mën a jël da ngay wàcc foofu siyaara dem loolu ku koy def kooku am na yéen a bëgg bëgg bëgg bëgg moom ci sëriñ bi moom wax dëgg yàlla moom ñi ñëpp xam nañ ci dara la def nag sëñ Tuubaa rek a tax mu koy def waaye nag ñu ni tamit war nañoo waxtaan waaw wax ci wax ci ba nga xamee ne ku ci ne mën nañoo sànn ñetti oto ba ñaar ñeent rek ñu àgg fa ndokkal ko diggante ak maamam ak sëriñ Tuubaa woon kon sëñ bi sant na ñëpp gërëm sama bàjjen yi fi nekk nag ñëpp rek sant naa leen sama soxna say sama yaay bàyyi leen ko tuddee kon bu mu fi teyee euh, sant naa sant naa ci baax ma waruma wax ci karama xeet yi waaye nag ndigal la boo xam ne sëñ bee ma ko joxe sant naa ñëpp ak sama yeneen bàjjen yeeg sant naa ñëpp rek waaye nag noonu la rek la ndax euh, sëñ ma sàmba moom nii rek la doxale woon ma mus ta bëgg dara ci jëmm ji sëñ bi wàcce na ko ay yooni yoon may waaye day day day dellu siwaat ndax caftak sëriñ bi daa xam lu mu doon moo tax buggul buggul buggul boo boo dee seen sëñ Tuba euh, li sëñ ma Masamba ànd ak sëñ Tuba kenn ànd kook moom waaye am penc sax amu ko Tuuba ngir leen bëgg sëriñ bi rek dayloo sëñ bi kon yéen lu ngeen li ngeen bu defee nii kenn du wax ne li tax ngeen war koo li tax ngeen war koo def waaw seen lépp seen seen i deret dereti ngërëm la am na ñu ni sax sama sa bàyyi sëñ Modou Fade xar yi bi sëñ bi sëñ Massamba di mas mi daal di boobu la judd moo tax yéen mënu leen a ñàkk a uh, nekk dareeti ngërëm sant na leen gërëm leen salaamaaleykum wa rahmatullah nee na li tax mbooloo mi mu am ci mbégte mooy mbokki sëriñ bi rek ko séq na ñooñu kat nee na sëriñ Tuubaa daal kuy nooy yi rek am na lu mu la defal nee na sëriñ Tuubaa daal kuy nooy am na lu mu la defal biir loolu murid yi dañ ci ëppale. waaye nee na ci biir loolu nag murid yi moom dañ ci ëppale. jullit a jullit ñi ñoo ci njëkk a ëppale. yi ëppale ci. da ëppale ci jullit ñi. ñi nga xam ne nag da a ne nag da leen a boole ci njabootu boppam. tamit am am amati ci lu ci kenn amut. nee ñooñu tam nag amati ci ci kenn amut. kon seen suñu mbooloo yi daf koy bëggee bu baax. nee na nag yéen mbooloo mii na ngeen xam ne suufu Sarsara daf leen di bëggee ndax ni ngeen di xeñtoo si liggéey bi nee na tey soxna maam Issa ku ne xam na ko ak pëstéefam nekk ci kanam nee na kon borom pëstéef yu mag yi nga xam ne ñoom la jàkkaar lool nee na bañ ko dalee ànd ak soxna maam Issa ak léegi ëpp na fukki at te nee na ñu ngi ci def pëstéef bu ne waaye nag nee na di leen xamal rekk ne seen jéego yi nee na tuutiwul de ci lislaam neena seen jéego yi daal jéego yu rëy la ci lislaam ndax tukkeem booba eh, li ci yàlla sotti ci ay xéewal ci jaam ñi li ci jaam ñi jëlee ci xéewal nee na nee na amul fenn fenn nee na mustaam ci lenn kon nag nee na ñun ñi nga xam ne suñu borom taw xel nañu ñu bàyyi lépp di ko xeñtu eh, nee na suñuy cër rëy na lool fa yàlla waaw nee na ndax yàlla du sànk mukk yoo la koy rafetal te nee na li ñuy def nag ak rafetal la nee na rafetal dëgg la ndax nee na xeñtu ko tedd koo kii nee na moom képp moo ñu yëkkati loolu képp ñu yëkkati nee na yàlla na nu gàttanu nag nee na duyal nu nag ban feesal dell dell nañ ko may ndox barki Sëñ Tuubaa nee fii nag ak fee fii ak fee nee na daal li muy fas kóllëre ak mbooloo mi daal nee na mbooloo mi nañ koy fasaale waaw waaw te te li Bamba wax léegi am na firnde ndax barki démb bañ demee ci fàllu mu sëñ Mortala ci ndigalam di ko yëgal bés bi ba nu waxee ba pare dane sëñ Sidi day sama rakk la waaye borom positif yi mag yi ci la bokk loolu sëñ bi bi mu koy wax sëñ ma jóoba ngi toog ñu ñëpp ñu ngi nii toog te sëñ bi mage na ko lu bari waaye loolu la seere ci moom kon nag Mbàkke ñu ngi sant daal sant nee na tam soxna yi mi ngi leen di ziyaare borom këru soxna si bu baax baax na soxna daal moom jëwriñ dëgg la ci liggéey bi te pësteefam it nee na borom pësteef yëpp yéem nañ ko pësteefam borom pësteef yëpp yéem nañ ko ñu sant baax a baax neen leen bàyyi sëñ Tuubaa awalu man yaqra'u baabal janna amaduna al muxtaari muy sunna iza katabtu aw xërëtu arfa usmanan tuudaw saakal arfa waj al midaadi fawqa kulli maay